ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp di xam la ne ñun lu ñu réer réer xam ne ne xaqiqatu muhammadiya seydina muhammad rekk la xam ne ni it ne wa shaqa lahu min ismihi li yujillahu fazul arsi mahmudun wa haza muhammadun xam ne ne muhammadun basharun laa kal bashar bal huwa kal yaquuti bayna al hajar dafa fekk rek ne man Cheikh Ahmed Cissé yàlla daf ma defal tawfiq may ma fasax ak làmmiñ may ma xel mu sell waaye ma jàng communication xam senegal ak sénégalais xam gu tuuti te bariwul ma xam ne wax kese mënuñ koo déglu Sénégal phénomène la phénomène lay déglu ma jëfandikoo xel moomu yàlla jox ma joxe ci benn message bu fort bu am doole ndax ñun suñ tawxiid ginnaaw tawxiid yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam leen am wala muhammad sallallahu alayhi wasallam leen am ak tawxiid ibnu harabil xaatim yi mu ne buñ xamoon dëgg-dëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon duñ jaamu yàlla moom lañuy ñuy man nangu naa nit ku wax ne dagan na ci sunna nga fóon sa jabar weeru koor waaye yellut ñu toog ci télé ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf doon fóonante ak jabaram weeru koor wax yooyu nag buñ ko sàgganee bañ manqué xàq yonantu sallallahu alayhi wa ci suñu biir ñun jullit ñi dinan dem ba suñ diina réer may wane ne loolu bu ko nit waxatee muy kalifa diine mën neen koo laaj ndax moom ndeyam daf doon fóon baayam moo tax ma jël suma kamera wax loo suma jarbaat mu wax loolu ngir message bi jàll tey vidéo boobu ñu baree ci jot ñu bëree ko nit ñi di waxee nu ne li ma ci bëggoon mooy sénégalais boo koy jaay dafa am noo koy jaayee mbir mu jënd ko moo tax yonent yi ñu wa wali yi ñu yàlla jox sa ay phénomène leen xoolal ko mel ni Maodo am na dëkk bu bañ a ñàkku tubaab yi bëgg leen a rey Maodo ne xaar leen ma ñëw rek la situation mu dem rek ak mbaggam ñàkku ñëpp ñàkk coow li jeex te waxul kooku phénomène la xoolal Xilaasu Saar xoolal ko mel ni Alaaji Omar Ndaw xoolal ko mel ni Cheikh Ahmadou Bamba booy compter mag ñi nag doo ci boole yàlla kon li ma bëgg a wax mooy yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi mooy suñ koom wi gën a màgg mooy suñ ngërmande mooy suñ yërmande mooy suñ lu ne kon buñ ko ñoŋalut fonk ko suñ dara du baax ndax lépp lu yàlla bind yonentoo tax kon message bi laa bëggoon a jàllale lépp lu yellut ci suñ ndey yi ak suñ bàyyi yellut ñu wax ko ci yonentu sallallahu alayhi kilifa diine buñ ci fonk yonantoo la xaajal ci mbaaxam te moo la gën te yow sax baaxoo yonantu rekk moo baax message bii laa bëggoon a jàllale ma def ko ci façon bu phénomène coow li bari objectif bi ma bëggoon a atteindre kuñ déggati mu wax ci yonantu lu loola leen ko ne ndax sa ndey defoon na ko sa baay wala sa baay defoon na ko sa ndey kenn bëggul ñu saaga ndeyam ak baay loolu nag bu ko nit ñi di bañ naka yonantu mi nga xam ne mooy suñ bàyyi bàyyi naka yonantu mi nga xam ne mooy sangi suñuy sang naka yonantu mi nga xam ne mooy suñu avocat ëllëg ci kanami yàlla naka yonantu bi nga xam ne mooy mbëggeel xam nga sirru muhabbati sëriñ ci waxuñ ci moo rey walli wi buñ ko jàngoon rek xam ne yonantu bi kenn du moom kon maa ngi leen di wan ne képp ku bëgg a ci yoon woowu nga ne ci laa ne man duma tëf li mu jublu penku ngir jox yonantu xàqam du ma tàllal suma tànk mu jublu penku ngir jox yonantu xàqam noonu leen ñu yare ñun sufiyanke cër boobu leen ko jox moo tax suñu jegee yenn yi daf ñuy feebar ma bëgg ñu xam ne képp kuy taalibe diw diw moomu yonantu moo tax mu mu xew yonantoo ko baaxal kon war ngaa teg yonantu ci kawam défendre àqam ngir su yonantu amul valeur ñi ko wuutu mënuñoo am valeur te al ulama warasatul anbiya kon lii moo doon waxtaan bi yokk ko ci nit ñi xamee ko nii wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin